mbokk yi amati mbégte ak kontante bu baax a baax a baax jàkkaarloog yéen fii ci Sénégal Buzz 221 ba ki ni ñu koy defee ak yéen rek saa su ne di dalal ay ndaanaan waaye tey nag ma dalal ndaanaan loo xamante ne ni ñu koy waxee nit la koo xamante ni sénégalais xam nañ ko bu baax a baax a baax ci ki xamante ni nag moo di suñu Papa Thione mu yàgg nekk ci ginnaawam yàgg gunge yàgg ànd moom ñuy génnee li nga xamante ni moo di drapeau Sénégal su ma waxee loolu nag xel yu bëri dina dem ci ñu bëri waaye nag ma dalal ci ki nga xamante ni nag moo di euh, Sista Nabou Diagne Ballago ñu xam ko bu baax a baax a baax nag ci digganteem ak Thione Ballago Seck digganteem ak ñi nga xamante ni ñoo di waa Ramdan mu yàgg ànd ak ñoom du leen gunge waaye tax amoon fa taxawaay bu am solo dafa fa fecc lu rëy loo xamante ne jamono ji ba tey sénégalais ñu ngi koy safoo tey nag ma ñëw seet si ko bu baax a baax a baax fas yéene waxtaan ak moom fii ci Sénégal Buzz 221 may am mbégte di jàkkaarloog yow Sista Nabou nuyu naa la bu baax a baax di la ziar. waaw ah, El Hadj maa ngi lay fay bu baax a baax kontaan ci li nga ma dalal. <laughs> kontaan ci li ma seet si kontaan naa trop te en plus ma baatu coon ba ma ko déggee rek tur bi rek day sedd sama xol. Uh-huh. moo tax lu ma ci waaye lu ma ci ku ma ci wootee dama lay wuy si. Uh-huh. ndax damaa bëggoon bàllaa ko uh-huh. macha allah. macha allah muy kàddu nuyooyu am solo xam naa ni dina ñàkk ñu après di rek ñëw taxaw ci moom tuuti rek. waaye tey uh, carrière bi nga xamante ni tey Nabou def na ko ci li nga xamante ni moo di musique. Uh, fan la Nabou dooree li nga xamante ni moo di carrière bi ba daje ki nga xamante ni moo di coon bàllaa waaye El Hadj moom franchement dama ci dama ciy sawar a tontu. man dama am sama magu góor bu tudd Papis Niang. Mhm. aar bi management. ñu ko xam bari na fii Sénégal. parce que mhm. yi bari ma koy tourné. suñu grand Papis. grand Papis <laughs> euh, sama frère la. Mhm. day def en général bu ñuy tourné man lay woo man maa ko wutal ay kër xam nga. soxlaa ay ay ay personnes man ma man man lay kii ñu dem ba ñu liggéey ci loolu. ñu dem benn moment ba commencé may feeñ ci clip yi. El defe naa su ma juumal feeñ naa 17 clip. 17 clip Thione Seck waaw su ma juumulee man ak Papis liggéey nañ ko man ak moom mhm. sama dernier clip mooy kuy reer reer bu Keba Seck bi mhm. dafa naa ñëpp xam nañ ko seetaan nañ ko mhm. damay tooñee Keba naa ko dama laa jëkk kuy maa ko def uh-huh. may def ay pièces théâtre série corps yi man ak waa TFM ah ñoom ndeysaan Ndiaye maa ngi koy yal na ko yàlla xaare àjjana fi daw si amiin amiin ñoom Thiamance waaw man daal lu ne sob sob naa daal lu ne dugg naa ci lu ne dugg nga ci eh, jour bi nga njëkk a dajeeg Thione nga xam ne jamono jii war nga dugg ci li nga xamante ne aussi moo di orchestre daja boobu naka la demee. aywa balaa ko ndeysaan xam nga euh, Amina Porté da doon def Dakar ne dort pas. Mhm. mais yooyu temps man xaw ma Papa Thione. Mhm. léegi nag mu ñëw def interview ma ne ku dul Thione Seck bëgguma la man Papa Thione rek laa bëgg. Mhm. benn woykat moo fi ne ci mi muy Papa Thione. naka la boobu ndeysaan seetaan na ko. si suba si ma ñëw penc may dugg rek fekk maa rang noonu quoi di jënd boobu commencé ko ma am entrée. may rang ne mu man ko man ma yow yaa doon sànq ci Amina bi nga ne man kese maa mën a way man ko waa papa man de man de la. Mm-hmm. noonu tudd man ko Nabou foo dëkk man ne ko maa ngi dëkk ko ñu studio Pape Ndiaye Diamalaye mu ne ma yow moom léegi Nabou Diagne Balla nga ko tudd. ndeysaan. ci loolu lañ xamante man ak moom. Mm-hmm. am sama benn sœur bu tudd Bour Guéweul Bour Bour Guéweul moom la Papa Thione doy Bour bu daali. Mm-hmm. Ah, woo ma benn jour. ne ma Papa Thione nee na pour mu ñëw nga ñëw kër Pape Vieux Guèye ndeysaan mm-hmm. kër Pape Vieux foofu lañ ñu ñu fa lañ daan fréquenté man Pape Vieux Guèye ndeysaan moom tam gaañu na daaw mooy meen xatu Papa Thion mm-hmm. tonton bi tey ñoom tamit ak benn ménagère am ñoom ñëpp ndeysaan dëddu nañ yal na leen yàlla xaare fi daw si ñu daal ñoo toog foofu ma daal di mu ne ma yow yaay simi sa tànk yow yaay def tànku di fecc dama tàmm uh-huh. di fecc dama am ñaari Nabou dama am Nabou Diagne Italie am Nabou Diagne Wally Seck uh-huh. damay def Nabou Italie Nabou ak Nabou Diagne Wally <laughs> ci loolu lañu commencé nag may fréquenté kër papa Vieux Guèye chaque jour fa lañ nekk ba 3 heures du matin 4 heures ku ne tëddi uh-huh. xam nga ñu dem ba mujj bi famille dugg daal. Mhm. ma dem ba sa fas si papa coon buy soirée des fois woy Nabou li dama toon ba nekk mujj bi ma dem ba dugg ci papa coon ba xam ma bàllaa ko. Mhm. Mhm. li nga xamante aussi moo di aar euh, bi yaakaar naa ne sénégalais xam na ci bu baax a baax a baax. Euh, kañ nga kañ kañ nga njëkk a feccal papa coon. non pas fecc dama naan taxaw ci piste bi. dañ naan taxaw ñun groupe la ñu woon. Mhm. man buur Aminta Fam Aïda Balago ñu ñëpp dañuy taxaw ci kanam ab sa taxaw ci kanam di fecc. Mhm. mais dama tàmm man su may fecc rek tànku leen laay def. ba pare dama benn style fecc benn fecc lay fecc. Mhm. mujj bi papa John danaa ba jéggal naa la ko. nabu jéggal naa la ko. nit ñi di ree kaf xam-xam nga rek ndeysaan dafa ba pare ku neex. ku neex dee na laaj. ku neex barki junante bi. xam nga sénégalais dañuy gis ne ku dëggu. ñu foog ne da ngaa bëri problème. da ngaa bëri histoire. Mhm. déedéet kooku du balaago. Papa Thione yëgul star la. Mhm. je me rappelle mos nañu toog kër Pape Vieux benn jour mu ne ku fi yor fii euh, nu mu tudd sax euh, euh, kii naar yi kaala naar yi. Mhm. ndax dafa bëgg car rapide. Pape ko ah lu nga bëgg dama mu ne ko non dama am envie dugg car rapide. Pape ko xoolal balaago soo dugg day rek duma la ko baal. parce que nit ku simple la. dañ naan toog xoolal ndeysaan di waxtaan yëgul sa barke Serigne Saliou Mbacké. yëgul star. coon xamul sa luy star déggu xamul xamul sa baatu star mm-hmm. moom day fàtte sa dafa siiw booy defaa da ngaa papa mun a ah, dama siiw am ah, la ma ci xam mm-hmm. xaw ma ci woon dara di mm-hmm. non nit ku noble dee na nit ku baax barki Sëriñ Bàmb coon Seck dafa neexoon fu mu toog noo ngepp te lu mu bëgg a wax nit la koy wax je me rappelle bu sañ toog a pavier mu di ma xool di ma xool di ma xool ko papa lan la man xam nga tax kenn kenn takku la man kaa mun ma sa bii bi di tàng moo tax kenn du la takk affaire bi métti ma mujj bi sama xol bi tàng ma mere ko mais xam nga rek mm-hmm. dafa lu mu bëgg wax mm-hmm. nekkoon nit koo xamante ne euh, bi mu dëddoo la Sénégalais yëpp xam kan mooy Thione lu métti euh, mu nekkoon koo xamante lu mu mosaan a way rek téere la mm-hmm. ay wayu Thione boo ko daan déglu ci yeete ak jàngale lan nga daan gis ci moom mais c'est le meilleur mm. fi Papa ba tey bay xool fi tey jii dafa na carrière yu bari instant bi mm-hmm. fii ñu bari ñu fi am tour ci ay way Papa Thione lañ génn la mm-hmm. ñu bëri fi siw instant yi Papa moo tax mais Papa Thione moo dàq way ci Sénégal loolu amul sax naa table ma du su ma xëyee moom laay déglu su ma meree moom laay déglu suma ma banquee moom lay déglu mm-hmm. chaque instant moom laay déglu yàlla def na nag famille Thione ñëpp samay xarit lañ Kéba sama xarit la damay toog jékki-jékki mu dugalu ma wéef mhm. ma ne ko keebaa mënu ma jëlal ba Ousmane Seck di ma mhm. dem di ko kaañoo yëkkati junni may ko mu may yàq xedeme mais ñun famille lañ dañ la ba nekk famille ndeysaan Assane Ndiaye pare ma soo xee a Nabou moo gën a bëri histoire ci Sénégal mhm. famille dañ la ba nekk famille Waly Seck dafa fi la toog naa fi mu yëkkati ñetti ci or may ma ko Mm-hmm. vidéo yaa ngi sama téléphone ñu bari gis nañ ko mm-hmm. yëkkati ñetti ceen jox ma ko ma nga wàlli nag mu ne ma sama papa jox la ko parce que doom papa coon nga mm-hmm. waaw parce que ñëpp dañoo sekki jàmm da ngeen sekki jàmm macha allah loolu xam naa aussi dinañ ñëw ci point boobu rek ak ki nga xamante ni moo di Wally Ballago Seck waaye Thione Seck nekkoon koo xamante ni à saa su ne rek comme li ñuy wax rek ci Wally lu mu doon lu Wally doon ci bàyyam la ku bëri woon coow la lan ngay wax ci loolu non mais c'est normal Wally doomu coon la c'est très normal loolu non mais papa Thione mais là si bëgguma sax di wax ci Thione daf may yóbbu fu sori dafa am ñoo xamante ne tey jii avant may ñëw ci waal dañuy miseel Thione ba tey jii may wax ak yow. Mm-hmm. muy Ameth Thiou ak Oumou Sow. Mm-hmm. Ameth Thiou barke Serigne Saliou Mbacke su ma ko message tag ci papa Thione si statut ba na nga xam ne kii boobu ñëw fi Ameth Thiou moom da koy xool xam ne boobu ñëw fi dafa dem. Mm-hmm. Oumou Sow pareillement day damay woo ay 3 heures du matin na ma Nabou Diagne commencé jàmm ko Oumou Sow 3 heures du matin moo jot de ay nabu sama xol baa ngi dagg. ay Papa Thione mere nañ ko def nañu lu ñàkk sax man ko mais Oumy da ngay muñ sa ki def daf bàyyi loo xamante ne nii El Hadj mënu ma la sax comprendre. Mhm. ñu dañuy dem nii rek mais dañoo wéet ah. da ngeen di wéet da ngay xool soirée bu la neex nga dugg rek mais man dëgg fa yàlla te bari naa ci morom Papa Thione wéetal nañu de. Mhm. li mu def dafa garaaw de. Mhm. dafa doy waar li mu def. dafa metti torop. Eh, bi nga yëgee ni coon wàcc na ci ban anam la la fekk ak naka nga ko yëgee. xam ah, nga damay tàmm di nelaw ba 4 mais su ma ne sama téléphone ne pas déranger koy def wala dama ko def silencieux naka de man adduna bi yëpp a ngi wax ma man de mais sama magu jigéen ba bokk parce que benn mag laa am muy faama. Mhm. adduna bi ñëpp a may woo même ñoom buur ñoom ñëpp a ngi may woo mais kenn jotuma mais maa ngi nelaw. Mhm. man daal sama doom laa dégg ay 3 heures et demie mu ñëw ba sama buntu nekk ba maa ngi nelaw de dégg ma naa papa dafa gaañu. ma xam ma mi te xel mu wax man waat bëreet man ko yow nga wax yow. mënoo dara man ko lan nga wax mu ne ma nee nañ papa Thione dafa gaañu mais dama tiit ba di ko defaatu ay saaga mujj damaa yuuxu ba koñ bi fees del del del del ndeysaan ba ma ñëw maa ngi fekk wàll toog ci buntu bi mooy barrière bi ñu ko defaral noonu mhm. dama dugg si ne di ko mel nar ma ko nuyu sax parce xam naa émission bi mu am dafa metti mhm. mais daf maa buddi kottu ma kottu ma jooy na ma massa lu metti lu metti coon hmm. eh, ñu koy ñaanal bu baax a baax a baax yàlla yërëm ko waaye tey hmm. eh, nit ku ne bëri na jikko yu baax yi nga xamante ne tey saa su ne yàgg nañ ko koo seedal moom suñu papa coon hmm. yéen jikko moo la gënoon a neex si coon eh, nabu sincère nit ku sincère la nit ku dëgg daf ñoo dem ba ñun ñi ay doomam dañu ci wàll lu metti metti da ngay wax dëgg lu metti metti waxal dëgg ñu toon noonu ñu yoree ñun ñi ah, xam nga dafa tam dafa fonk anniversaire waaw dama toog année avant muy gaañu année boobu. Hmm. ma fàtte ko souhaité joyeux anniversaire. ma yow Papa Diop une semaine du ma jël. ma ne Bour ah man Papa Diop damaa koy jël waaye ko jël dama ko wooti. Bour ne ma ah ma ne ko waaw dama ko wooti bàyyi li ma ko woowul souhaité joyeux anniversaire loolu la mer. yaa leen def ñu def ba jubóo waaw xam nga dañu bëgg a hmm. su bëggee reetaan daf may woo rek allo. Naba Diagne Pata ma ne ko Papa mu ne waaye dama wax Naba Diagne Pata. yooyu commencé kaa ñëw ree nekk ñu jàll ci leneen. anniversaire bi ndeysaan bi muy waaju dernier anniversaire bi ma ànd ak Aïda man ko Aïda xam nga suba la anniversaire papa Diop léegi laa koy woo souhaité ko joyeux anniversaire ma woo ko ba sonn téléphone fay man naa Aïda ah papa de xam naa day bañ koo ko déranger téléphone fay na de nekk de xam naa ne instant boobu mi ngi ci wàccaay gi mhm. non lu méttee noonu moom yàlla bu ñu dara ci àdduna mhm. barki yonent bi mhm. metti waay. lu metti waay. trop macha allah yaakaar naa ne àdduna noon la sax mënul woon ñàkk aussi ñu yëkkati kàddu yooyu rek ci jëmmam jooju nga xamante ni moo di euh, Thione Ballago Seck mm-hmm. waaye ginnaaw bi nga xamee ne tey Thione wad na ginnaaw euh, yéen ñi nga xamante ne yéen a jege woon Thione yëg-yëg bi ngeen am wéetaay la wala lan la. ñu dañoo wéet. micro. Mm-hmm. El Hadj. Mm-hmm. ñu dañoo wéet. billaah premier korité nga xamante ni dañ naan pare guddi gi préparé bu dem Thione mais loolu. ñaantu yàlla bu mu amati ci àdduna boobu métti dañuy wootante ñun ñu daan ànd dëggeen man ñoom Oumou Sow ñoom ñoom Buur Aminta Alimatu Sadia mais de loolu loolu loolu bëgguma bëgguma wax sax ko fàttali. Mm-hmm. non loolu du metti jiw ba ku ne dañuy wootante ñun ba ñu ngi wootante. Mm-hmm. barke yonent bi waale fu mu ñu gis jooy mënu loolu tayu ko fu mu ñu gis jooy. Mm-hmm. ba barki dem moo ci mujj grand théâtre yéegu ma nag parce que ñoom man xam ma dama xaw ragal nit mais ñoom buur yéeg nañu Aminta Fam mais ku ne mooy instant bi am na ñaari femmes yu mu gor di jooy waa kër Papa Thione la ñu ñëpp ñoo daan toog par guddi hmm. fu mu ñu gis jooy loolu c'est naturel parce que xam na ne affaire bi dafa dëgg woon mooy ci moment bi muy woy njool sikki merci beaucoup bi njool yéegee dama hmm. bëgg naa yéeg mais instant wiri moo solo maa ngi toog premier rangé hmm. ñoom buur ñooy yéeg ak Aminta ñoom laa ñu ko tudd sànq fu mu leen gis jooy kon looloo indi jooyu waali bi mais bien sûr dañoo jege woon coon. da ngeen jege woon coon. Mhm. Euh, yaakaar naa ne solo loolu ci lépp rek li nga xamante ni rek saa su ne dañu koy indil Sénégalais fii ci Sénégal Buzz 221 waaye delluwaat tax di wax di rendre hommage ki nga xamante ni moo di suñu papa Thione Ballago Seck waaye ginnaaw coow Wally sekk ci Sénégal jamono ci nga xamante ni coow na coow coow li bëri na loolu ci na Nabou Diagne. Mhm. naka nga ko gisee ak ban jàngat nga ci am. wala coon lañu indiwaat. non kooku day xuus dem. xama ma moom sa suñu rab jubawuñu eh. dañuy xuloo moo ëpp lu ñuy ànd ba nag moom suñu rab bëggantewul mais kooku day xuus mm-hmm. day jàll kooku doomu ndaanaan la kuy sa baay papa coon mais kooku en ma koo téye ne bañ bëgg day jàll ci kàttanu yàlla yonent bi moom la fi yàlla teg dañ koy nangu mm-hmm. moom la fi yàlla teg mm-hmm. par force dañ koy nangu waalee fi ne xale yi moom lañ bëgg mag <laughs> ñun yaayu waale yee sax moom lañ bëgg moom la ñuy déglu man soirée wala man du ma ko tardé c' est très rare ma toog du ma dem vogue wala du dem baari mundi mhm. c' est très parce que ñun moom la instant yi moom la ñu xool ci Papa Thione mhm. boo toogoon tuuti ci ginnaaw dégg critiques yi ak coow yi nga xamante ne à chaque fois ñu ngi ko koy teg wala baat yoo xamante ne mi ngi koy dégg ci lépp loo xamante ne rek wàllum musique la wala wàllum ay détails ci réew mi naka la lay def metti surtout Papa bi soo soog gaañu am na ñu ko fi doon waxal mhm. lu ma metti mais ay bàyyam jug nañ faj ko Ousmane Seck jug na Kéba jug na Assane Ndiaye jug na Mapenda Maroc moom laay tooñee Maroc ma pend Maroc laa koy woowee. Mhm. ñoom ñëpp jug nañ. mais pas peut-être Papa Thione dëddu na mais ñoom ñëpp soutenir nañ ko même bu xale waale mooy nit koo xamante ne yëgu sax li géej gi riir maanaam boo ko doon tudd fukki fan yëgu ko après ngay toog expliqué mu ne ah ah lu ma ci xam. Mhm. loolu jikko bu ma neex la ci moom. Mhm. kenn du ko mës a dégg ci àdduna bu tont du tont du mës a tont ci àdduna. bàyyi ma ko yar nag. doomu naa naan la. Euh, saa su ne dañuy euh, faral di seede li nga xamante ni moo nekk ci moom muy jikko social bi. Mhm. ñu bëri ne euh, jikko la boo xamante ne ba tey lu mu doon ci bàyyam la ndax bëri coon bëri woon na famille yu mu yor. Mhm. bi mu duddoo lañ ko xam keroog rek mi ngi ko doon nettale ci benn plateau fay suñu frère Sidath Thioune. Mhm. ñaari jikko yooyu noonu ci coon ak Wally social boobu noonu kon Wally lii mu def nii daf ko doon du lu mu sàcc. bien sûr man papa Thione chaque deux papa su ma tey lekk ma yoruma dë yoruma jaañ xanaa yow chaque jour doo lekk parce que xam naa ne du la gàntu. Mm-hmm. soo ko wooyee léegi papa Thione lu mu bàyyi dina woo diw ne ko dugal ma diw orange money wala dugal ma ko diw weef parce que xam naa bàllaa ko mm-hmm. dañu doon ba dañ ko miin ci xam yàpp ci lool ba bu ñu toogee toog nii rek defuñu dañ koy woo kaa ñoo ko ci lool sa xoola xaas te ñëw mm-hmm. noo def mu yónnee la du la neen moom du koy neenal kon ça veut dire papa Thione Wally si ci ca papam la jëlee ni mu mel même Kéba noonu la mel cette famille la Kéba gën a taali Ismaïla Yacine Kéba gën a mën noonu noonu la mel loolu si bi la famille Seckène la. Hmm. Ousmane Seck ku ko gën ci réew mi am hmm. seen famille la loolu ñoom ñoo mel noonu. sama xarit la wax dama kaa lakkal. waaw loolu seen famille la dañoo ñoom dañoo tàlli. <laughs> famille famille Seckène la. Hmm, li ma suma seeg naa man man maay géwél bi may géer ma ne ko yaa xam waaye jox ma rek. Mhm. ñoom dañoo tàlli seen famille la. dañoo tàlli waaw kon yi nga xamante ne mi ngi koy def askan bi yëpp naw ko ci eh, jikko la boo xamante ba ci bàyyam la jiitoo gis nga ni ñuy def tabaski ak eh, ñi mu ciy dimbali wala li nga xamante ne noonu cee defee xol yi muy seddal bëri na. Mhm. Eh, acte boobu noonu Wally Diop ci réew mi ban gis-gis nga ci am. baax rek Wally xolax muy El Hadj ak muy Nabou xam na ne peut-être El Hadj xam na ne El Hadj ñàkk ko mën na ko jënd. Mhm. mais day jóg woo El Hadj ko Mm-hmm. parce que xam teraanga la dafa xam teraanga. Mm-hmm. nit ku xam teraanga la. Mm-hmm. toog naa nii nii nii rek mu yëkkati ñetti seen or may muy dijj ma ne ko lii nag ma sam jox naa ko ngir sam papa. xol bay yaatu ci maye. dafa mën. xam nga joxe ci xol la ku ne xam ne alal dafa sax ci doomu aadama. mais joxe ci ci xol la dafa mën a joxe. te bàyyam la ko doonu nag. mi noon nga maman nag. franchement pas tellement. parce que ñun këram bu ñu fay dem en général yu bari. dañu fekk mu mu mu nekk ci néegam. Hmm. mën nga ñëw këram parce que un mois de mois doo ko teg bët. waaw hmm. ah. euh, tey gis nañ kàddu seede yi nga xamante ne saa su ne rek askan wi ko koy seedeel ci jàpp bu rafet bu mu jàppoon coon. Hmm. lan nga ci dolli. ndax jigéenu saykat la woon. ki ne Diouf kenn dégg ko ci dara. ku am fulla ku am fayda ku am personnalité kenn dégg ko ci dara. ki ne mës ngaa toog ba dégg ko dara ci moom ci moom dara. dafa am fulla rek. bëggoon jëkkëram jàppale ko nag. man dama ko man moom dama ko naw te xam naa ni ma ko neew ñu bëri ci noonu lañ ko nawee. Mm. ni ko am personnalité la. Mm-hmm. waaw. Euh, naka nga gisee jamono ji li nga xamante ne nag moo di show bi Sénégal ndax nag milieu bi jamono ji danse na lool Nabou Diagne euh, defante bi yàqante bi loo ne daan woon ah, daan na am mais daan nañu ko woon gis. ni mu mm-hmm. amee jamono ji mm-hmm. naka nga gisee tendance boobu. Euh, ambiance Sénégal. Ah. loolu ambiance bi nag xam ah, nga gisee fan yii Baara Mouride Pape Diouf ak Waly. waaw mais loolu mooy tendance bi ñu gis dem Pawlish Mbaye ak Adamo mm. ah. Sidi Diop Wally Seck mais loolu mooy Sénégal parce que il faut ñu toog benn moment di warante mun cee ñàkk c'est le Sénégal. Mm-hmm. loolu Sénégal bi. loolu mooy ambiance Sénégal bi. Mm-hmm. kon peut-être sénégalais ñoo dul comprendre mais ñoom artistes yi amuñu problème. non non non non non non non non non mm-hmm. parce que xam naa dañu bëgg a peut-être dañu ko def pour defar defar seen seen seen rek mais amuñu problème boobu. franchement. Mhm. Mhm. Euh, dafa am loo xamante ne nag actualité la ah. nag ma laaj la ci laataa may tàggatoo ak yow ci li nga xamante ne xewoon na fële ca euh, France euh, soirée Viviane Chidid Ndour ma koy nuyu baax a baax a baax au passage. mais dafa am actualité bu fa judd ba muy yére yi nga xamante ne Ouzin Keita sol na ko àdduna bi yëpp def ko polémique yére jigéen la yére jigéen la góor warul sol yére jigéen naka nga dundee polémique boobu noonu Ouzin def keroog. mais Ouzin dafa neex. Ouzin dafa neex. <laughs> gis naa ko salapet bi. Uh-huh. non Ouzin dafa neex. non kenn xamuma salapet la xamuma combinaison la kenn xamul. mais mais ki ko ñawal moo ñu tooñ. Ouzin dafa dara de. Uh-huh. ki ko ñaw moo ñu tooñ. amee lañu àq de. non tooñ nañ trop. Uh-huh. non Ouzin solo lañu trop trop. non loolu loolu loolu dama ko dee ba bëgg a dee bàkk Serigne Saliou. mais jàpp ñu bëri jàpp ne day dooleel góor jigéen wala dafa am tey xaw ma ndax miin nga ko mais ci wax yooyu ñu koy wax. kan mooy Ouzin wala kuy dox ci genre yooyu la ba critique yi dal ci kaw waaw mais yaa ma gën a xam rek. Mhm. ndax Ouzin moom franchement. Mhm. xam nga moom lu ko neex def rek. Mhm. yàlla teglu ko benn coono lu ko neex def. Mhm. waaw ngi noonu. Mhm. <laughs> macha allah muy kàddu yu ama am solo. xam naa ni euh, du ñàkk nag ma jéem a jaar fii rek pour tëjaale li nga xamante ni moo di waxtaan bi. ndax euh, saa su ne dama koy faral di wax nit la koo xamante ni kenn la si coon balaago sekk. moo tax tey ma profité rek am occasion ak moom. ñu delluwaat rendraat bu baax a baax a baax suñu papa hommage. ndax damay profité rek bàyyi la nga joxewaale euh, dernière kàddu yi ci li nga xamante ni mooy waxtaan bi. El maa ngi kontaan yow. di di kontaan ci waa Dakar euh, ci Sénégal Buzz. Mhm. xam naa ne Sénégal Buzz moom ku ko seetaanul seetaanoon dara ndax internet bi ñoo fi teg tànk. loolu réew mi waaw loolu moom yàlla ko dogal dañ koy nangu. Mhm. di nuyu nag ñëpp di kontaan ci dalal bi nga ma dalee El Hadj mhm. di di di di nuyu képp koo xam ne doom papa coon nga ci Sénégal. moo xam coon xam la wala bañ laa xam maa ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp. di wax kontaan naa ci ñëpp. ci famille papa coon. nit ñi gën a déglu musique papa coon. waaw xam ne mi ngi lay yee. Mhm. Pape Thione wayantu lu mu woy dëgg la kaamin la. lu mu woy kaamin la. Mhm. ñu profité nuyuwaale suñu frère boobu noonu Fallou moom it xam naa ne fii la foofu place waroon defee. Fallou Fallou yi dañuy dañuy baax la de. non day hmm? baax la de day cenc maayin. dara ñu nuyu ko rek aussi waa. place hmm. maa ngi nuyu Jolof euh, mooy borom kaay nag mu posé lu ci réew mi waaw waaw li def da ko moom c'est le meilleur ah. non ñoom um xayri mm-hmm. di ñuy képp koo xam ne waaw di ñoom ñoom um xayri ak képp koo xam ne yaa ngi fay liggéey rek mm-hmm. ñoo fi mën de mm. ah ndaanaan la Fallou moom moo fi mën moom jolof anglais ñoo fi mën Fallou ndaanaan la franchement ñoo fi waaye mën nuy waare waar rek benn mm. aawaxur dabb nday saw kooku <laughs> ah, sambaam ñaareel da wax amin na borom dëkk borom dëkk lu neex li da wax sa da wax amin mukk ci àdduna dama ko wax ah, waaw ay ragal lañ nday saw tapet la Ah, ñaareel bi dina ñëw. non non non ragalul nag. Hmm. non kooku ragalul. ragalul non non non ragalul. baax na macha allah xam naa ni euh, kàddu yi am na solo loolu mbégte lay am rek. Hmm. dal na ak wala kontaan naa bu baax a baax a baax hmm. tey ci jàkkaarloog yow. Euh, liggéey bi Sénégal Buzz di def ban taxawaay ngi ci gis. mais dañoo mën dañuy def. Ah. El Hadj man yéen la yéen laay wër. loolu suba ba ngoon damay xool ci internet fu ma gis Sénégal Buzz damay dugg seetaan. yéen fi nekk. waaw loolu am loolu jarul sax laaj. loolu am na loolu la leen wax de yéen ku leen du déglu actualité dina leen koy xëcc tubaab. waaw actualité. actualité mi ngi noonu. ndeysaan géwél yéen a fi ne lu mu wax réew mi dañ koy baal topp yoon topp la ci dara <laughs> mais kontaan naa bu a baax. non El a kontaan. Uh-huh. franchement kontaan naa ci daal rek ma dalal. Mhm. sama na trop. Mhm. kontaan naa franchement macha allah rek la ñu koy defee mbokk yi ak yéen saa su ne di dalal ay ndaanaan te nag ñu amoon mbégte bu baax a baax a baax dalal ko suñu sis uh, Nabou Diagne di kontaan bu baax a baax a baax mbokk yi di leen jox dig daje ci beneen numéro jërë ngeen jëf. merci.